asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi doon topp tey seen télévision Al Mouridiyyah euh, njàng mi bisub tey mi ngi door a àgg kon ngeen xam ne kuréel 2 bu daaree dakaar ñoom ñoo yoroon njàng mi tey ñi doon gàttandu sëñ bi di kuréel bu Saint-Louis loolu mooy li nga xam ne mooy programme tey bi 18h30 euh, jot na kon xam ngeen ne euh, waxtu wi nga xam ne moom la ñu waajaloon njàng mi mat na gis ngeen kon saal bi ni nga xame ne noonu la feese woon dell boo ko seetloo tamit. ñi fi teew ñu bare dañoo fexe rek ba yaatal ñi nga xam ne mooy mbokki bopp sëriñ bi ak ñi nga xam ne ay jegeñaaleem nañ ak mbokk taalibe yi bu dee ñi nga xam ne ñoom la sëñ bi féetal liggéey ba muy Hizbut Tarqiyyah ñi ca ëpp ñi ngi ca ma ca biti foofu la ñu féetewoo ñii fi nekk ñu ci bare ñooy personnel de service bi ak jëwriñu Hizbut Tarqiyyah sëñ Youssou ak ñaar ak ñett ñi mu àndal ngir supervision ak taxawu liggéey bi waaye li ëpp ci ñi fi teew mën nga ne ay ñoo xam ne dañoo ñëw ngir njàng mi ñu yaatal leen waaye liy jëmmi membre Hizbut Tarqiyyah ni ko jëwriñ ji soññee woon ci tàmbalik liggéey bi dafa mel na ni jëfe nañ ko leneen ni ci dolli ko tamit ñuy jël rek fursa bi nga xam ne euh, daje bi may nañu ko ngir fàttaliwaat soññe bi sëriñ bi defoon ci ñu sàmmoon sàmmonteeg ndigal yi nga xam ne waa kër docteur joxe nañ ko ci li nga xam ne mooy jamono ñu toll ak xew-xewu jamono li nga xam noonu la tëddee ba nga xam ne kon liy jëmmi mask yi ñuy fexe di ko takk bu baax ak tamit di diwoo gel defe naa ni agent de ñu ngi ci jàpp waaye ñu ngi ñaan képp koo xam ne yaa ngi teew di déglu wala nga am yéene ñëw fi ëllëg wala nga nekk fi barab boo xam ne euh, dañ fay daje nii ñu fay daje defe naa ne liggéeyal sëñ bi la ci euh, jàppale ko ci loolu nga xam ne soññe na ci muy soññe bu am solo loolu kon mooy li nga xam ne tey moom lañ leen andi lool muy liggéey boo xam ne euh, def nañ ko bisub tey fii ci kër sëñ tubaab gi ci néeg bi nga xam ci salle bi nga xam ne fa lañ koy defee saa su ne diggante 17h30 ak 18h30 fidèles téléspectateurs d'Al Mouridiyyah merci d'être encore fidèles à nos programmes Et aujourd'hui encore, euh, c'est une nouvelle page qui se tourne dans ce processus euh, le mois béni de Ramadan. Euh, C'était le huitième jour hein, de ce mois béni et qui coïncide avec le 22e du mois d'avril 2021. Euh, et nous sommes un jeudi et le programme que vous a, de s'estomper et euh, la, la, salle est en de se Donc, euh, et le programme qui nous attend demain, le courriel de Thiès qui avoir l'honneur, n'est-ce pas, d'avoir à psalmodier les écrits de Cheikh Bamba devant le vénérable Khalif général des Mourides et le courriel qui sera à l'honneur pour aller accueillir et raccompagner le Khalif, c'est le courriel un de Kaolak. Donc Thiès et Kaolak seront à l'honneur qui pour déclamer les Khassaïd devant le Khalif et qui pour le raccompagner et euh, véritablement euh, l'accueillir euh, jusqu'à son entrée dans la salle. C'était donc un programme alléchant et nous avions eu à cœur de vous faire un éclairage, un coup de projecteur sur euh, le euh, programme qui a été proposé. Nous étions hier sur Fousti, nous y restons un peu, puisque Fousti également a fait partie du répertoire qui a été déclamé par le Courriel 2 de Isbutarché de Dakar aujourd'hui. Et nous nous étions appesantis sur tous les critères formels qui caractérisent, n'est-ce pas, cette production de chez Anglomba, 12 vers mais surchargés sur le plan euh, formel. Nous avons parlé de la rime, euh, de cette rime avec euh, tout ce surcroît, n'est-ce pas, de difficultés le cher s'impose. Nous avons parlé également de l'acrostiche puisque c'est à partir d'un verset que le cher a composé ces douze vers pour en faire un poème, n'est-ce pas Mais il y a également l'aspect euh, de fond. Euh, c'est une thématique très importante puisque euh, on peut dire que Fousti est une ode, c'est vrai, mais il y a ce qu'on peut appeler des dominantes parce que Si le poème s'ouvre sur, n'est-ce pas, un propos élogieux à l'endroit de la Vénérée Marie, quand il dit félicité ô toi Marie, surabondance de bonnes œuvres, sainte patronne des femmes chastes et charitables, déjà cette surcharge de d'épithètes, cette surcharge, n'est-ce pas, euh, de termes qui sont là pour qualifier, n'est-ce pas, euh, cette euh, grandeur incommensurable de cette femme vertueuse, c'est déjà un aspect du poème. Mais à un moment donné, le poème également prend l'allure d'un véritable bouclier qui défend et montre que ce poème sera un argument contre solide, évidemment contre ceux qui sont tentés, n'est-ce pas, de proférer de fausses accusations à l'endroit de la Vénérée Marie. Et le poème se ferme, n'est-ce pas, sur une allure de diatribe. C'est une véritable diatribe puisque est un démenti formel à l'endroit de ceux qui, n'est-ce pas, euh, proposent ou bien euh, mettent en avant euh, des théories que l'islam rejette au plus haut point. Puisque à un moment Ibn Kilabi Haliki, Indal Alimansiki, ton fils n'a pas été anéanti. Au contraire, il vit auprès de son Seigneur pour dire que c'est pour pourfendre, n'est-ce pas, des arguments qui peuvent être mis en avant et que l'islam considère comme nul et non avenu. C'est pourquoi donc, véritablement, on ne saurait parler d'une production qui a une allure, mais des dominantes. La dominante élogieuse et marquante, La dominante de bouclier est marquante, mais également le poème véritablement se mue en une véritable diatribe et qui est un argument qui pourfend des théories qui sont non contraires à ce que l'islam enseigne. Voilà donc pour la leçon du jour. Aujourd'hui, nous étions donc dans Fousti. Nous y sommes revenus aujourd'hui parce que ça fait partie du répertoire. Évidemment, dans une autre circonstance, on pourra aborder d'autres poèmes. Et merci d'être merci de suivre Al-Iftar. Merci de de suivre, n'est-ce pas, le viatique Et merci également de suivre, n'est-ce pas, euh, la retransmission de la prière de Tarawih, n'est-ce pas, les Nafila, et pour tout ce programme concocté par Isbutar Khir au grand bonheur, n'est-ce pas, de tous les jeunes, de tous les musulmans. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa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 wala ngeen woote ci seen succursale ci lu 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 ca établissement Mbaye et ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ngeen ko bëggee yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madad